ant sunu gan colonel Antoine Wardini salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu. Mhm. colonel l'armée nekkoon nga fi euh, commandant zone militaire numéro un su ma juumut. oui jiite woon itam euh, service civique euh, national. noonu la am dëgg la. waaw la ñuy waxtaanee ëllëg la ñuy sunu indépendance tombeek nag itam ñu am ab njiitu réew mu yees bokk na ci jàmbatuk nit ñi jikko yi citoyenneté. Euh, civisme euh, dafa nërmeelu ci biir réew mi bokk na ci def yi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci kanamu nguur gi fi ne euh, yow l'armée nga jaar nga fa on sait que certes service commandé la mais pourquoi ñi nga xamante ne ñoo di l'armée yi gën a jub ci wàllum civisme que askan wi. merci beaucoup question bu am solo la li ma la si mën a tontu moom lu gaaw la te foog naa yàgg nañ ko wax te xam naa xam ngeen ko ñëpp xam nañ ko. Nous, ñun des def service militaire formation militaire. té formation militaire dañ lay jàngal affaire yu dañ lay discipline dañ lay jàngal eh, respecter say ak say ngay obéir ay ordre renforcer itam sa patriotisme ba nga dëkk bi koy def ni sa alal ci nga jaral na formation yoo xam ay formation ay cursus la yoo xam ne dañu koy def si biir ba nga xam ne yow boo fa effectivement da nga am différence ak ak ak ak civil normal bu ko deful. moo tax ñun toujours dañuy ñaan yàlla toujours dañu di wax ñaan yàlla ne xale yi def formation militaire waxuma carrière de formation la wax wala module militaire wala même bu ñu ko deful tam ñu dem dugg si service civique national wala ñu dugg sax si mouvement à foulard yi ñuy wax ay pionniers ak ay croix rouge yooyu yëpp c'est des mouvements encadrés <laughs> xale yi boo leen encadré xale yi boo leen encadré rek ñu ñu da nga leen mën a jubanti ba awloo leen fi nga leen bëgg a awloo mais bu ñu leen encadré wul bu ñu leen bàyyee ñu demal seen bopp nekk ci mbedd bi mbedd ba leen di yar. différence bi loolu la ñun dañuy encadré di ñu def ay formation di ñuy jàngal tam di jàng di ñuy pratiquer loo ci terrain bi di ñuy dërëj pour ñu xam ne lii la nga war a def lii nga war a def bu la kilifa waxee defal la ngay def. dañ ko jàng moo tax mu am différence tuuti foog na ak ak ak civil yi. mais gën gone léegi daf mel ni sax ñoom ci seen wàllu bopp ñoo euh, bañ a léegi ñu encadré seen yoon yi bopp lañ jël. ah dede xale yi xale yi dañ leen bàyyi ñu jël seen bi xale yi dañ amul dañ amul pexe dañ leen bàyyi ñu ñu ñu ñu jël seen yoon pexe bala nga lu tax ma wax xoolal bi def recrutement militaire recrutement militaire du chaque année la xoolal xale yi daw ci centre de recrutement yi dañ fay fees di fay faraan ay fanni fan di ngeen def lépp pour ñu jël leen dekk dañ leen mënul jëre parce que budget bi voté woon pour loolu xam naa moo tax mënuñ jël xale yu bëri bëri bëri service civique national tey bu leen woon damay recruter ñëpp dem

Nous def ko ñu obligatoire peut-être à partir de 18 ans comme nous avons koy gisee ci yenn dëkk yi euh, lan lañ par exemple ci l'école nous, euh, ñi fa jaar déjà primaire peut-être euh, secondaire ñu xool lan lañ renforcer pour former les yi lan lañ def. encadrement la xam nga ñun yéen wax toujours mooy militaire sénégalais, force de défense sécurité sénégalais. Nous, dañuy liggéeyal askan bi li ñuy liggéeyal askan bi moo nous fay askan bi li ñuy liggéeyal ñun ñu ne demal ñu dem ñu ne ñu dem choses, ñu ne ñu dem ne demee ñu dem ñun damay ñaan rek gars yi di sukkandiku di wala force de défense yi di leen ñaan ñu jàpp leen si encadrement yeen encadrement affaire école yi nga wax ni ñun ça nous ferait plaisir bu ñu ooy ñu dem école wax ma académique de mm. wala def en tout cas def tuuti civisme ñu duggal ko ci cour yi dafa te war a nekk ci cour yi kooku yàgg nañu ngeen nekk mel ni par exemple euh, ñu ne euh, entre 10 heures et 11 heures euh, cour boobu yéen a koy dispensé. bu buggee def ko 10 heures 11 heures wala ñu xool benn période boo xam dañu jox xale yi ñu ñu def ñu defar li par exemple pendant les vacances pendant les vacances xale yi ñu ngi vacances mais ñu temps bi ñu nekkee xale ñu temps bi ñu nekkee xale yi ay ay ay ay centre aéré xam nga ndax yéen xam ngeen affaire yi demee noonu mm-hmm. temps temps yi temps yi yàgg yi mm-hmm. dafa ay centre aéré nga xam vacances bu jotee da nga vacances yu mais da nga dem centre aéré tam centre aéré tam dañ lay encadré di lay jàngal ay liggéey yu ndaw ay poterie ay ñaw ay agriculture ay encadrement rek la xale yi ñàkk man gi ma nekkee service civique national ma yóbbu xale yi ay civil nga xam mu suñu def armée ñu yóbbu leen ñu dem di liggéey si yenn camp d'utilité publique yi mooy boo ñu yóbbulee Fatick wala ñu yóbbulee Tambacounda lu fenn le boo ngeen nekk fi regroupement di dimbale askan bi fi nekk di peinturaat seen école yi wala di béy wala di nettoyer école yi loolu yëpp encadrement tant que yàlla l' encadrement rek xale yi boo leen ñu dem mais bu fekkee kenn waxu leen dara ah ñoom dañuy demal seen bopp rek école yi mënoon nañu bokk ci formation yi comme ni toujours formation même cadre supérieur yi Nous ñuy gëni bala ñu jot un peu de citoyenneté un peu de formation citoyenneté civile. en tout cas Léna, euh, module euh, euh, immersion un peu yenn sur le terrain. école service civique national le premier ministre. Abdoulaye Boun Mohamed Boun Abdoulaye Dione mo ñu recevoir fële ci Grand Théâtre wa mm. di ñu féliciter si liggéey bi xalé yi liguey ci dëkk ci si dëkk bi ma profiter aussi waxoon que ne li ma bëggoon mooy bu fekk mën nañu def benn centre ben centre national de renforcement du civisme et de la citoyenneté ñu def ko Diamniadio parce que Diamniadio amna espace état bi ñu fa def 3 hectares 4 hectares tabax ñu ben centre bo xam ñun ñoo fay nekk ñun militaire yi ak suñu encadrement ak suñu encadreurs yi ñu def ay formation def ay planning di tourner lo école yi écoles yi grandes écoles yi même talibé même association toutes les couches de la société nous pour 10 jours 15 jours 20 jours ñu leen citoyenneté discipline patriotisme les institutions de la République ko en 10 jours. 15 jours maximum. Mais lan intéressé un jeune qui marchand ambulant il sait que gagne sa vie tous les jours il faut marcher, dem marché et tout dix jours d'immersion fofu foofu lan moo mu ko mun a intéressé. li ko mun que gis nga immersion boobu bu ko défé bo génné comme dans l'armée lay jox ben ben attestation prouvant que servir nga tu as bien servi attestation bobu dañu wara valoriser jox ko société fu ñuy embauché ñu jël ko en compte. en priorité ñu en priorité parce que armée boy génné jox un certificat de bonne et de bonne conduite. de bonne conduite xam nga kon que bu la ko joxé yow yow bu ma ñëw jox la ko de certificat bonne armée armée ko signé te mu wóor xam nga kooku da nga xamné ki mom mom moom jub na mën nañ kon ko liggéey loo nañ def loolu immersion bi ko defone kuy génn ñu wone aw nga defal ben attestation jox leen ne tu as servi wala tu as appris les rudiments rudiments yu ndaw yi affaire discipline patriotisme etc ak engagement. loolu laaj na tout budget non quinze jours euh, ñom da nga leen di tej euh, ñuy lek fofu nan euh, euh ya ça demande un peu de moyen. waaw wante bo xolé bo xolé boo xoolee askan bi ah. xalé yi. Sénégal comme ni ñu wax rek soixante ay xalé lañ. Ah. xalé yaa ngi laaj liggéey xalé yi dañ bëgg a tekki mais bu ñu bëggee tekki ku bëgg a tekki mais il faut nga formé ko ku bëgg a tekki muy école normale sax la la wax il faut euh, parents yi sax fay école sax pour ñu tekki parce que buñ ñu tekki bu amul diplôme buñ leen formé amul ben diplôme amul ben qualification lolé mëna jox ci richesse yi am ci Sénégal actuellement yépp lolé mëna jox buñ ko jëlul ñu joxe étranger ñëpp di yuuxu li wax kon nak ñun dañu wara jël xale yi former leen tàggal leen. avec quel budget par exemple concrètement ñaata euh, budget euh, boo xamante ni bu ko élaborer loolu mun na prendre en compte ces jeunes là ñaata jeunes. par par par voilà ça dépend si effectif bi. Mm-hmm, par exemple est ce que dañ koy def benn yoon ay comme ni service civique national def léegi jël à peu près cent gars yóbbu leen les Thiès si SNEIPS bi dafa formation deux semaines trois semaines est ce que loolu la wala est ce que dañ koy jéem a nationaliser ko au sur le territoire national région bu nekk département bu nekk ñu jël xale yëpp jël ma dugal ba kii loolu la beneen budget la mais budget yooyu du dara parce que budget yooyu mel la entreprise société sociétés yi fi nekk entreprise meun ñu nañu waxtaan ak ñom ba nga xamne ne day mën financer tuuti formation bi té bu paré à contraire bu paré rek xalé ñu jël leen yóbbu leen jox leen immersion chez eux mais d'œuvre la mais d'œuvre bo xam dañ la qualifier touti wala dañ leen mën am amal touti ci gardiennage wala ci administration wala ci dawali té li duñ fay salaire immersion la prime la ñuy jox gay kon mën nañ mën résorber sax ñom li ñu financé affaire mën ko résorber té gouvernement bi itam mën na ci dugal loxom UNICEF

parce que du yàgg du formation bu yàgg formation bu nga di aw fa rek ñu waxtaan ak yéen dirige mais nag il faut ñu ñu pousser le tuuti former le tuuti nga xam rudiments yi nga xam li nga war a def da ko def xam ni ngay respecté affaire bi ni ngay jëlee alal dëkk bi ni nga koy gérer ni nga koy defee yi leen jàng rek yu ndaw la colonel wax nga ko sànq yéen militaires yi fu ñu leen yóbbu da ngeen dem euh, askan wi ngeen di liggéeyal askan wi moo leen di fay mais mbir mi yemul kot léegi ci gone yi même mag mag ñi sax civisme dafa xaw a tumuranke da ngay gis ab médecin ñu affecté la. ñu ne ñu dem du dem bërëb sangam nga ne doo dem enseignant naka noonu ñeneen naka noonu. loolu ñooñu fa fan lañ mën a jaar ba delloowaat leen ci yoon. Euh, yorom njub valeur yooyu dellu si loolu def ñuy delloowaat ci affaire yi gouvernance bonne gouvernance ak mauvaise gouvernance mhm. bu fekkee bonne gouvernance am na am na autorité te tam li nga war a def yaa ngi koy defal nit yi li leen war da nga leen ko jox je crois que kenn du bañ a dem fenn mais gars yi boo nee Tambacounda ñu ne dafa sori gis amul télévision amul lii amul laa dañu sori njaboot baag yooyu mais mais ana ana autorité bi xaw dañ la affecté du du fonctionnaire nga du état bi moo lay fay da ngay dem ba demul ñu ñu ñu sanctionné jëlee dàqale jël teg fa keneen rek mais à condition également tam nit itam bu ñu bu leen di yóbbu ah, fu sori. yóbbu leen foo xam bëgguñu fa dem waaye day fekk dem un peu d' accompagnement aussi. plus aussi ñu def ko de manière euh, kii nu mu tudd. Euh, ñu yemale équitable waaw équitable bu ñu taamu dara nañ la xool ne di bu ñu la yóbboo bu ñu la yóbboo fii li nga li la war dañ ko fa teg li nga xam lu le basique le minimum dañ la ko fa tegal boo buggee euh, faju da nga mën a faju boo buggee dem banque da nga mën a banque boo buggee location bi seetlu trop xale yi jàngi da am école yu ñu jàngee ah parce que tam du ñu yóbbu fenn nga sacrifice say doom nañu waxante dëgg

alhamdulilah rabbil alamin amna gouvernement bu bees bo xam ñëpp mom lañ doon yaakaar mu yaakaar nañ yaakaar bëri na ci ñom ay xalé lañ té joxé nañ ay promesse té ci seen campagne bak ak ni leen jappalé yépp ak ñom promesse yi def yépp foog naa bu ci yalla jappé man la ragalu ma ne dana dox bu baax parce que ñi foog naa équité bi nga wax légui dana am parce que wax nañ ko affaire justice sociale bi dana am ah légui nak jappalé xalé yi xalé yi il ñu jëm leen outal liggéey bu fekkee amul liggéey tam ñu jëm leen former au moins ñu former leen te former leen bu leen formé ak ay société laa wax mënuñ def benn benn compte benn kii contrat ba nga xam bu ñu paree benn accord bu ñu paree ñoom ñu jël xale yi en immersion au Brésil ça se fait au Brésil xale yu ndaw yi yi nga xam bëgguñ jàngi académique kenn du leen forcer parce que fi Sénégal boo admiwul école rek boo demul université ba génnee ay master ñu ne échoué ne non Brésil xale yu ndaw yi nii bëggul jàngi école bëggul jàngi école football la bëgg nga jëgul école football mu def carrière màgg dem kii électricien la bëgg nga jàngi électricien muy dem parce que si électricité bi wala plomberie bi wala maçonnerie bi ay niveau yu ndaw la mais dañuy màgg après def ay ay ay ay grade di di di diplôme gën a mag dañuy dem ba nekk ay ingénieur nit da nga koy xool li mu bëgg nga jàppale ko ci bokk ci mën a jàppale comme sa doom mais bu fekkee da ko bëgg a ni li nga de par force baaxul nga ne dàq naa la génne tu l'exclus si tu l'exclus si se sent exclu ah kooku moom du joxe te li war a joxe day jéem a uti wala lu mën a yàq dina ko. wax nga par exemple talibé yi lan lañ mën def parce que gis nañ quand même euh ñenn ci ñom ñu ci mbedd mi wala sa peut-être ñenen ñi nek ci daara yi qu'est-ce qu'on peut faire ci côté bobu solo mais talib talib yi tam kooku responsabilité parents yi ak responsabilité état bi parce que état bi sax warul nangu tam doom suñ doom état bi warul nangu sax suñ doom yi laa la wax comme Amérique suñ doom yi ñu leen di def yenn ci si mbedd yi ñuy saraxoog yu waruñ ko nangu xalé yi ñoy avenir du Sénégal ñoy avenir dëkk bi kon état bi def ci am responsabilité ni ci mbokk yi amee responsabilité bu ñu gisee xale yi ni def la baaxul aux États-Unis ñu nangu xale bi jox ko service xam nga loolu mooy mooy lu war mais xam nga fii réew mi mu mel fii fii ni mel parents yi amuñ xaalis amuñ xaalis loolu la te doa wante tam da war xam ne nit boo dee ba jur ay nit bay takk jabar di jur da ngay xam ne am na ay responsabilité yoo xam war nga ko mën a assumer doo fi jur di jur di jur di jur rek teg te mënoo def dara loolu am tuuti mais fekkee même amuloo tam même bu amuloo tam ngi ñu jéem état bi am na ay services sociaux yoo xam dañuy dimbale nit yi dañ leen dimbale wante yoo tam bu ñu lay dimbale comme bourse sociale ak affaire yi sa mbokk yaa ngi fi yoo tam nga jéem def dara li bon kay mooy ñu lay jéem a dimbale nga toog di xaar ndimbal bi bés bi nag di toog di xaar doo def dara parce que ndimbal bëggoon naa ko wax tam les les les candidats ndimbal bi du avancé loo Sénégal de ndimbal bi ni di joxe ni du avancé <laughs> tàmm di lay may di lay may doo avancé dañu la war a liggéey loo tàmmal la liggéey nga mën a liggéey mën a naaw mën a tekki mën a tekkil dëkk bi bu fekkee da nga ñëw bi nañu ne même euh, assistanat bi assistanat bi voilà culture de l'assistanat voilà très bien boobu la ñu war a jéem a xeex mu dañ Sénégal tant que dañu fi tant que ñu ngi ñaan ñu joxe rek du baax dem mel ni Sénégal ak les pays européens gars yi ñu jox ay financement di ñu naan on vous aide mais aide bu baaxul. mais en même temps aussi les aides sociales da nga koy gis euh, même en France à wala feneen xam nañ ñi euh, ñi amul yenn moyens yi mën nañ leen jàppale peut-être au moins xale yi mën a nekk ci l'école yi parce que quand même yenn ci yenn yenn yenn réew yi euh, jàng l'école farata la il faut nga jàng pour nga nekk quand même euh, jàpp ni euh, tu es un citoyen boo xamante ni plus ou moins accompli am na foo xamante ni war nga fa yegg mm-hmm. su boobaa ñu jàpp ni mun nga nekk un bon citoyen loolu tamit bokk na non ci culture bi jàppale leen ci yenn aide sociale yi su ko defee ñu des ci l'école bi sa taalibe yi kay talibé bu leen ramatoon tey jox leen ay uniforme dugal ci ay école ñu jàngi jox fu ñu lekk ak cantine scolaire yoy kon yaa ngi lekki mais c'est que dem man dama xamul ñu leen joxee jox leen marabu yi xamul ñu leen di gérer au niveau des marabu xamul ndax force la ñu ñëw di dem di saraxu di ñëw di jox gaay yi wala je sais pas <laughs> mais xali ko jox ko met dans de bonnes conditions la wax dans des conditions normales rek pour mu liggéey ak liggéey boko def lo dana foog naa ci si jublu quoi xolal au bri euh, dama ngi lire temps yi Argentine les cantines les les cuisines populaires xamul les cantines populaires mm. Ah, nga xam ya di a nga xam ni même bo liggéey bo demee amo fay liggéey mun nga am ay centre yo xam di nga dem nga fa ñëw lek fi tuuti xam nga lo respect la voilà benen aspect ngi noonu respect ak dignité il faut ñu cultiver ko ci suñ si suñ ni askan bi xali il faut ñu jëm leen def lo ba nga xam ñu kontaan bo bopp fier seen bopp respecter seen bopp am un peu de dignité c'est-à-dire waruñu fi nek di di sarafu la assistance ko war a bàyyi dañu war am ay droit par exemple les cantines scolaires amna fo xam bu ñu demee mën nañu fa lek parce que parce que alalu dëkk bi ñëpp ko mom mais fan lañu wara jaar ba restauration des valeurs gogou doon une réalité restauration des valeurs pour nous donner une réalité j'ai dit comme que essayer nañ parents au niveau des familles Ça ba tey marché wu dañuy wax rek mm-hmm. Essayer nañ école ba tey wax dañuy mais les la nañ leen comme ni Mali def temps Mali mm-hmm. gis na xale yu dugul dugal yu bari ay contingent yu bari ba ñu rangalé leen dugal fonction publique wante bala ñuy liggéey fonction publique formation militaire ñu ngi seen ñëpp militaire mais amna ñi nga xamanté ne évoquer par exemple service euh, militaire obligatoire est-ce que solution la si loi bi fi si loi bi bu ngeen ko xolé man euh, loi bi Sénégal

xale yi amuñ salaire baa ngi am salaire il faut ñu jóglee dans la fonction publique xale ñu jox moy eh, prime wala indemnité de de de kii la li ngay jëndé cigarette wala sabu wala affaire yi loolu hmm. seerul ay eh, trente francs xam nga loolu bëgg na donc 18 ans normalement bo yexé 18 même bo doon jang da ngay arrêté pour faire ça naka lay demee ah non ça dépend bu féké da nga bëgg def laa wax bu féké bu nga def ah donc c'est pas obligatoire fi Sénégal du obligatoire non non je veux dire par exemple yo lan nga japp dañu wara obligatoire lii fii wala man de defee naa dañ ko wara obligatoire obligatoire bu modéré c'est-à-dire ku ko deful ku amul parchemin bi ku amul ku amul attestation d'avoir servi ou de servir la bonne conduite bu ñuy joxe liggéey itam ah ki am moom ñu war bonus que quelqu'un ko amul parce que tu as tu as servi l'état ou moins. mu une plus value. ah oui une plus value le laa yaakaar. Mhm. mënuñu ma tegale man ma sacrifice ma addil sacrifice armée armée génn ñu ut ben poste ñu koy jox kii parce que am diplôme amul mais man servir naa l'état li ñu wax bul xool li lay état defar mais xoolal li nga mën état bu fekkee joxna état cër bi liggéeyal nako yakarna né en retour warna naa am ratam ben benn bu ndaw. Hmm, en tout cas c'est am na ñen ñi nga xamné xeyna xëy na dugguñu armée te ñu ngi liggéey peut-être wala ñu bëgg jël benen yoon mais qui aurait bien qui aurait bien aimé def tuuti service militaire ñu ubbil leen ko. gis nga au Brésil. Oui, formule Brésil, ça me plaît beaucoup. Au Brésil, hein, parce que j'ai fait le Brésil, j'étais attaché défense là-bas. Moi, on a fait mm-hmm. jardinier, suma kër jardinier brésilien. Mais moi, chaque 3 mois, chaque trois mois ah, deux jours deux jours chaque trois mois ah, deux formations recyclage recyclage hmm. ah c'est obligatoire hein. leur peuple là c'est qu'ils ils, avaient été déjà préparés. Mais contexte, contexte là aussi, hein, Non, d'abord le boire, patriotisme, patron papa, directeur, patriote culte boobu la ñu war cultiver suñu dëkk ba nga xam gars xamné Sénégal jaral na leen lépp. Sénégal leur histoire aussi loolu la aussi. <laughs> jërëjëf. Ah, jërëjëf Colonel Antoine Wardini merci beaucoup jërëjëf euh, Mohamed euh, Ali Mba mi ma àndaloon ci